un état sérieux loolu moom vraiment loolu bu demee ci yoon day am problème mooy ah. nga xam ne nekkul président Macky Sall boo fi nekk ah day am problème ah oui liñ tey liñ daan xeex liñ daan xeex ci président Macky duñ ko nangu ci gouvernement président ah Bassirou Diomaye Faye ah oui ah il faut que ñu xam ko exerce leur métier mm. parce que nga woo il faut ñu ñu ci xel ñu profité di euh, nuyu waale ngi euh, depuis Italie ne daf mm-hmm. ñuy suivre euh, tous les jours muy l'émission matinale euh, le point de la rédaction ñi profito également di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk euh, ci diaspora bi di ñu suivre tous les matins Euh, Madiambal Diagne il a réagi hein, par rapport ak li xew démb ba léegi ah. ay Mahfouz nañ teel na faut pas créer nga gis nga euh, nee na nee na délit délit offense au yi teel na. d'accord léegi Madiambal su fekkee moom dafa jàpp ne li Badja waxee wax ñaawul nañu dindi turu Ousmane Sonko def ci Madiambal Diagne moom mu publié ko ci journal la ko dajee bi mu yor wax ji wax ji franc waaw jeex na kon gis naa dem sax kii Cheikh Ousmane Touré di ko wax mais mais na ko def il verra te moom yàgg na yàq deru Ousmane Sonko hmm? moom moom mosu ko may moom moom ma jamal jaañ yàgg na yàq dara Ousmane Sonko ah. Mm. ah pour de vrai ba bàyyi woo sax porte parole euh, xalifa général des Mourides kooku mënoo bàyyi kenn xam nga tey xam nga gis nga mooy. li li non ah, non bàyyi ko parce que fi mu fi mu man man bëggoon naa fa ñëw. parce que parce que tamit am na ñoo xam ne ñoo amul war ma ci nit. Mm-hmm. am ñu war ci nit quoi. Mm-hmm. te ñoom dañuy def bu ne weng. Mm. ñëpp teg ci seen bët ñoom ñu fàtte seen bos di lijjanti bosu keneen yow da ngay def loo xamante Sénégalais yëpp teg seen bët mm-hmm. <laughs> ñu am ci ay preuve nga am passé lu leer lañ ñëpp gis ko xam xamal la ko. te pourtant kenn ko ci tànk yow yow ci da ngay yor paan lijjanti koppu jàmbur. <laughs> xoolal ngay sosal nit wax loo xamante ne mooy loolu il faut que itam vraiment Sénégal daal. yaa ngi may dugal ci koo xamante man ay waxam vraiment mooy loolu quoi Madiambal moom nekk na koo xamante ne vraiment man non je n'ai en fait jamais aimé ñu bal ci kàddu gi mais mm-hmm. kenn euh, ko mm-hmm. na koo xamante ci réew mi euh, dafay d'information kese dina ci wax yoo xamante ne daal damay jàpp ne euh, ay sources yu baax la. Mm-hmm. waaw mais ci suñu jëmee ci ci nit.

avec euh, la sortie euh, wala la publication euh, de Madiambal Diagne. <laughs> bon xam nga man maay tey Madiambal c'est ma fausse xam nga ñun ay ay ay ay jeunes journalistes lañ déjà premièrement doo dox. wala ngay waxtaan ak sa benn naataangu journaliste jeune journaliste ba mu ne man <laughs> sama référence mooy sama référence amul ah kenn kuy jël référence ci Madiambal Diagne te pourtant moom ya y a des journalistes yu bari bari yoo xam ne tey ay koo ci des fois koo ci li muñu la man maa ngi référé ci kii wala kii maa ngi seetaan ay ay ay ay kiiwam maa ngi xool naka lay bindee article am et mais doo gis kenn ku ni man jambal Diagne danaa xëy ba xool ni muy hmm. traité ces sujets nga xam ni man dinaa ci mën a benn aperçu wala ni muy des fois développé wala nangam ak nangam wala kenn kuy jël ci moom référence amul déjà loolu rek pour man dafa doy sëkk ci ñu xam kan mooy Madiambal Diagne <coughs> léegi nag euh, xam nga euh, nu mu tuddati ki nekk port autonome Dakar Waly Diouf Bodian mhm. dafa dafa am lu mu wax mu ni opposant bi fi nekk parce que nag gars yi ñu ngi fi seen xaalis jeexagul. jeexagul xaalis bi. milliardaire yi <laughs> xaalis bi xaalis bi jeexagul de. ak léegi matagul sax deux mois. waaw loolu la moo tax xam nga nag mënagul teel a jeex. <laughs> moo tax fi mu ne nii il faut que les gens fassent très attention. <laughs> mais am na doole ba léegi opposant milliardaire la ñor de yow milliard yow milliard yow xam milliard yow. seen journaux yaa ngi maanaam <laughs> gis nga tey booy xool. Euh, régime mu bon xëy na nag am na ci yoo xam ne muy du jëm ci wàllum reddition reddition des comptes loolu tamit il faut que yoon moom moo ci war a def li mu ci war a def mm-hmm. c'est pas le pouvoir euh, euh, au pouvoir exécutif que di ci ñoom te xëy na loolu bu ñu bu ñu respecté normes yi rek xëy na du lu ñuy xëy parax paraxee ko il faut ñu jël seen temps étudier yenn yenn yenn dossiers yi mm-hmm. mais tey ma jëmbal jaañ c'est normal parce que gisoon nañu aussi tamit moom moom mosul ànd wala mosul d'accord ci lu président lu arrange président Diomaye wala Ousmane Sonko ko moom tout le temps amul lenn lu yëkkatiwul teg ko ci kaw deeru ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko à l'époque mm-hmm. kooku noonu nag tey bu dikkee di défendre Bah Diakhaté pour man dafa nekk loo xam ni eh, c'est normal rek ñoom ñi ngi ci seen ay logique ñoom kaawu Seyrim Seck war na leen a yee Seyrim Seck fii la toog ma àbbu kàddu Cheikh Bara Ndiaye am seet bu bees <laughs> dem di seetu bind ab livre am bind jël ko neex ci kaw capitaine Touré ñu <laughs> jël ko yóbbu ko ci yoon fi mu ne nii yóbbu nañ ko ci yoon amul benn firnde gu mu mën a indi voilà pour pour pour mën a justifier loolu noonu léegi daan nañu la. mais ku ñu daan première instance rare nga dem deuxième instance par non non ko par ah, défaut et tout. mais su ñëwoon itam say diffamation c'est. yow ñaata yoon la ñu renvoyé procès. procès onze fois la ñu ko renvoyé mënoo fexe ba indi benn preuve ñu dem ba daan la nga daw ba ñu daan la nga naan non dañ ma àtte par défaut y avait j'avais des des des des firnde yu ma yu ma joxoon euh, sama sama avocat pour mu indi ko mais may ñu ko mu wax pour man njooy ay alibi la rek yu muy saxal gaay mais euh, ñun euh, bu amoon ay ay ay ay ay nu mu tuddee preuve yu fondé man gëm naa ne doonu woon daw fenn fii lay toog jàkkaarloog ki nga xam ne mooy capitaine Touré parce que nag dafa yomb trop nga toog. ci kaw nit bind la neex un livre nga xam dafay des fii mhm. moo tax capitaine Touré lépp def nii dama ko rafetlu te ma ko ci encouragé parce que il faut mu seetal livre les écritures demeura mhm. fi lay des parce que nag mënoo fi ñëw judd ci réew mi mënoo koo génn am fi sa njaboot dem ba ay at say sët ñëw ñu naan lii ci sa papa lañ ko bindoon mhm. te yow doo gis ci wet gi leneen lu koy weddi léegi nag bu ñu nee sa papa lii lañ bindoon ci sa papa nga mën a génn ni yoon dàqoon na ko ba seet néew na kii da doon kàcc da kese li mu doon wax daroon fen dara du ci dëgg moo tax pour man cas boobu war na leen a yee ci côté boobu moo fi mu ne nii war nañu def très très attention te ñu xam ne nag la woon wanni na ay nekk fii làq doom dóor doom amatu fi de dem wuyu ji yoon rek moo tax vraiment ma jamal jaañ man bëgguma sax di attardé wu ci ay ci ay kàddoom parce que moom mi ngi ci logique am euh, te mi ngi ko daan def comme ni mu ko daan def <laughs> xam nga nag. non Ahmed dama dama toog te maa ngi ma naaj ci doo wax jàmm ne. mais xam nga nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg. <laughs> mais ñi fi yore ay journal nii. di di di di def seen une chaque jour yore ay quotidien xam moom journal le quotidien la yor mm-hmm. mais bu ñu waxantee dëgg rek mais ñoom li ñuy xëy di jaay surtout journal boo xam ne kenn jënd ko le quotidien ku koy jënd da man mën lan nga da nga ci mën a fay say employé fu ñu jëlee xaalis bi ñuy fay seen employé wala fu ñu ko daan jëlee loolu question la boo xam ne Sénégalais war nañ ko posé moo tax nag ah xam nga nag des fois dañ naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ëmb sa kersa ku la abali gët fu la neexee xool moo tax des fois ñoom man dama jàpp ni xëy na ah comme que mosuñu ànd ak régime bi ba tey ñoom ñu ngi ci seen logique rek di di continuer di di hmm. def la nga xam ne <laughs> moom la daan def. d'accord aussi aussi aussi li may fay doole bon euh, ci côté média moom comme je l'ai am na ñoo xamante gis nga Walf Walf nii ngeen gis nii. Hmm. mais contre pouvoir nga teg ko si dëgg. gis nga comme ni may waxee. xam nga ngay contre li ko may li bi di ko bàyyi xel ak di hmm. ko bàyyi gët mooy lañ ne mooy télé lan télé askan parce que am na loo xamante ne leader kaka moomoon woon ci ay jamono. Mm-hmm. ne bu leen musa nangu nit. nekk patron patron. Mm-hmm. chaque sooy mooy seen patron jeex na. kese mm-hmm. moo tax en un gis nga nguur gi nii nee na nee na opposant bu muy bu gën a mag bu muy gën a am. ce sera Walfadjri. nguur gi nii nii ah, ah oui amul amul amul sax wax. parce que dégguma am na loo xam ne dañ nga xam ne moom ngay def quoi non dama la koy nangul sérieusement pour dire vrai parce que man tamit man personnellement man dama am sama ligne éditoriale yu bopp mhm. dafa am noo xam ne noonu lay gisee. tey su may liggéey yow nga bëgg maa forcer loo xamante ne man bëgguma ko wala ànduma ci je vais faire mm. mais tamit ci sama liggéey man doo ma wax nii ngay def ah mm-hmm. li ma neex ci sunu sunu sunu site sunu site site web bi ñun on est libre ah, ah oui il faut le dire tey tey ah. ne neexu ko après may a Jérôme li ngay wax xoolaat ko mm. ma tere ma xëyee mm. la nga xam ne moom laa xalaat effectivement il faut le dire maanaam cette pensée de cette liberté là qu'on mm. qu'on a euh, et quand même aux journalistes de de moo tax sénégalais yu bari di seetaan site web yi mm-hmm. parce que dañ naan ku ci nekk foofu noonu am nga